de PASTEF et membre aussi de Jigéenu PASTEF salaamaaleykum kooku yi. maaleykum salaam Diab. vous allez bien. oui merci beaucoup. alhamdulilah. ah ñu ngi nuyu senegal gi yëpp di leen euh, sargal ci weeru koor bi ñu nekk. Mm-hmm. di ñaan aussi lépp li nga xam ne lañu lu ñu fi wax yàlla nay njëriñ rekk ci askan bi. Mm-hmm. merci. Euh, merci beaucoup Rougui comme ni ñu koy defee à chaque fois dañuy dugg suñu vif du sujet euh, par rapport a l'actualité question réponse euh, lay doon sama jigéen tey yow xam naa ne yooyu miinoo sama plateau yaa ngi fi soog a ñëw donc relax rek dañuy waxtaan rek ngir rek indi ay éclairage yu am solo par rapport ak actualité bi fu mu toll fii ci réewu Sénégal xam naa ne sans doute suivre nga l'actualité bi nga xam ne moo ñeel wàllu moo fo médicaments yi nga xam ne la police saisiroon na ko passé euh, nga gis polémique yu si am euh, gis nañ démb collectif des avocats yi nga xam ne euh, ñoo constitué en défense pour ñi nga xam ne moom lañ tuumaal si wàllum faux médicaments yi ñoom indi neen aussi des réponses par rapport à ces soi-disant faux médicaments mais au-delà de ces faux médicaments dañoo gis ne Sénégal wàllum jaay garab ci anam boo xam ne Euh, nekkul euh, moom leen ko bëggee dafay bëri donc selon vous qu'est-ce qui motive nit yi ñuy dem di ou dem vers ces pharmacies médicaments wala état bu Sénégal bal taxawin la si war a am aussi ne serait-ce même pour la santé de la population merci Ndiab pour cette question en réalité man euh, dama jàpp ne en fait euh, la santé coûte cher au Sénégal loolu moo tax nit ñi di recourir euh, ci faux médicaments yooyu parce que ñun bi ñu gën a nekk xale je me rappelle que c'était une réalité boo amee lu la metti da ngay dem ci boutique ba tu te permets d'acheter en fait des paracétamol des analgésiques des choses comme ça mais léegi pour man aujourd'hui ça avec euh, suñu fi ñu toll nii tey ci ci économie fi ñu toll waral tey ça devait être impansable ñuy xëy di wuti garab ci mbedd yi di dem parce que fi ñu fekk tamit médicament yooyu sénégalais yépp xam nañ leen xam nañ fan la ñuy jënd ji médicament yi xam nañu luñ fay wuti parce que en fait pour man rapport coût bi rek moo tax ñuy dem ndax en réalité Sénégal fi ñu toll tey ci ci santé bi loolu moo tax dañ ko war a dañu def war a def un diagnostic profond là-dessus parce que lu tax boo xoolee da ngay gis da ngay taseeg nit nga dem hôpital ci boppam boo xam ne moom lay fajoo day gàddu ordonnance jox la parce que problème am mooy garab bi. Mm. donc est-ce que c'est pas le moment aujourd'hui ñu taxaw carrément xool pour man état généro carrément ci concernant la santé. ñu jël ay euh, mesures yi nga xam ne moom moo war a accompagner euh, la population sénégalaise ñu jéem a wàññi en fait faj bi faj bi ci boppam parce que foo laal ci secteur faj bi du ci garab yi rek. Mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy feebar à l'hôpital tout le temps c'est des téléthons parce que man mënuma comprendre aujourd'hui dans un pays boo xam ne ñu ngi wax ne budget bi mu ngi dem à presque mille milliards. Mm-hmm. te mënuñu régler les problèmes yi nga xam ne seen des problèmes euh, de base. Mm-hmm. des problèmes qualitatifs mu ci mel ni santé éducation. loolu bu ko réglé léegi ban problème la ñuy mën a régler après. Mm-hmm. Mm-hmm. kon fan la ñu war a mën a accès tey suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu xalaat. Mm-hmm. Rogué su ma résumé sa wax yaa ngi wax sur suñu souveraineté par rapport ak euh, suñu système sanitaire ñu gis ne carrément le Sénégal bien vrai que euh, entreprise bi euh, benn corps étranger moo ko moomoon moo nekk Médis Sénégal ba Covid bi dugg dugg see gisoon neen président de la République via son ministre bu yor wàllum santé bi Abdoulaye Diouf Sarr ñu loon def jéego ngir rek ñu ubbi li nga xam ne mooy Médis Sénégal tey est jotul état bu Sénégal mu gën a defewuñ garab fii au niveau du Sénégal parce que comme ni ñu ko waxee la santé coûte cher te xam ne ni garab yi defewuñ ko suñu réew te est-ce jotuñu investir aussi foofu effectivement parce que loolu la parce que le choix des investissements dafa mm-hmm. am solo ci ci yorinu ci yorinu réew mm-hmm. parce que il faut nga xam fan nga war a def sa sa xaalis pour soulager c'est pour le bien-être en fait de tes populations mm-hmm. parce réalité boo xoolee ñii di génn pharmacie ñi nga xam ne defar garab rek ñoom ñoo leen mooy seen métier. Mhm. actuellement y a des chômeurs. Mhm. pour man loolu nekkatul tey ji fi ñu toll tey ci Sénégal mhm. problème yooyu dañ ko waroon régler loolu mooy problème yi nga xam ne moom la ñu war a njëkk a régler balaa ñuy dem balaa ñuy dem ci leneen mooy problème mu santé comme ni ma la ko waxee. dafa jaadu tey ñu investir ci secteur boobu ba nga xam ne population yi quand même bu ñu feebaree. faju ku soxla garab am ko. Euh, léegi ñu wax ci beneen sujet d'actualité actualité boobu nga xam ne mën nañu wax euh, rapport ak euh, l'affaire Adji Sarr ak euh, Ousmane Sonko ñu gis ne carrément émeute yu fi amoon ak euh, point de divergence si nga xam ne amoon nañ ci Euh, la personne bi nga xam ne moo yoroon euh, dossier enquête Adji Sarr Ousmane Sonko nga xam ne mooy euh, le capitaine Touré ñu gis ne aussi amoon na si ay divergence entre moom ak fu mu bokk mu nekk la gendarmerie nationale ñu meloon ñu ñu ñu mel ce 12 mars nag ñu mettoon ko si benn correction pour cinq jours mais ci dernière information yi nga xam ne rotee na ci presse bi dafa mel ni comme le ministre de la justice euh, dafa rallongé waat euh, punition jusqu'à euh, soixante jours mu nekk mbir boo xam ne aussi ñuy wax période d'apaisement mm. est-ce que tey c'est le moment aussi di ra rallumer waat aussi tension yi aussi vraiment man dama comprendrewul sax doxalin bi ñuy def mm-hmm. soo nee apaisement mm-hmm. dafa war a nekk un ensemble pour man mm-hmm. parce que tey man dama jàpp ne capitaine Touré quoi qu'il en soit vraiment il a été vraiment un acteur déterminant ci complot bi parce que bu dul woon moom xëy na li xew lu bari bari bari duñu ko mën a xam te vraiment li ma jàpp tey jii seton un honnête citoyen c'est un intègre nañ ko bàyyi mu ñibbi këram wala ñu jël ko réintégré waat ko parce que Sénégal bi ñu mel noonu la soxla nañ ko bàyyi mu dem ba pare vraiment mën na euh, njàpp damay jaaxle parfois on nous parle d'apaisement lan moo tax tey jii ñu war ko fa waat période bi jeex na 45 jours jeex na nañ ko bàyyi parce que deful dara. deful dara mais aussi euh, mun nañoo wax ne aussi dafa amoon devoir de réserve aussi euh, par rapport ak liggéeyam. c'est que man problème mu ay droit de réserve parfois ça me pose problème droit de réserve nga xool ñuy lor doomu aadama qu'est-ce qu'il a fait parfois ñun dañu war a xoolaat lan mooy essentiel ñu di ci dox. Mm-hmm. lan moo war yitteel instant bi askan bi xam nga lañ fi mu toll lañ fan lañ soxla. Mm-hmm. gis nga cette précarité sociale là. loolu la ñu fi pour man loolu moo waroon nekk foofu la ñu waroon accès tey suñu ay débat ci loolu la waroon di wax mais si seen coow yu sew yi pour man waroon nañ ko débat dañ ko waroon dépasser clore ko une bonne fois pour toutes te pour loolu am nag nañu bàyyi jàmbur mu dellu ci liggéeyam nekk ci li mu nekkoon. est-ce que bàyyi jàmbur mu dellu ci liggéeyam ah. nekk ci li mu nekkoon dina nekk lu yomb parce que gis neen carrément que euh, bu ñu corsé mbir yi yóbbu ko euh, jusqu'à soixante jours mun nañu wax ne est-ce que le capitaine Guèye fu mu toll nii euh, nekkul di courir euh, radiation comme ni ñu ko defee woon kii di Ousmane Sonko aussi. waa ñoom il sont habitués loolu du ma bett suñ ko rajo rajee du ma du ma bett loolu wax dëgg yàlla. Mhm. mais nag instant bi Sénégal jàmm la soxla. Mhm. du ñoom ñoo woote jàmm. Mhm. waaw nañ ko njëkkee. Euh, ñu ñu ñu wax ci actualité bi mu nekk par problème de l'emploi des jeunes yow nga nekk une femme euh, politique mais aussi euh, koo xam ne da nga yëkkatu bu baax ci wàllum entrepreneuriat rawatina ci wàllum jigéen ñi mm-hmm. nga gis ne carrément depuis les indépendances mun nañoo wax ne président yu fi succédé yëpp. dañoo def benn aveu d'échec par rapport ak emploi xëy ndaw yi donc sur ce coup au-delà du président Macky Sall balaa ñuy ñëw sax si annonce yi nga xam ne def na ko par rapport à ces milliards yoo xam ne naan na ko injecté waat si mbirum jeunesse. loo yaakaar moo moo retardé ba tey euh, le fait que euh, jeunes yi ñuy am liggéey lan mooy problème bi en fait depuis 1960 euh, ba tey sa problème dafay perdurer di demeurer mu nekk benn mbir boo xam ne dafa nekk épine au pied de de de tous nos dirigeants aussi. oui parce que tout simplement dama foog ne vision des politiques publiques bi ñu waroon am. Mm-hmm. ça pose problème. parce que dafa war a leer ci bopp Sénégalais yépp. mu leer tamit ci ñi nga xam ne mooy ñuy diriger que l'État n'a pas vocation de créer des emplois mm -hmm. il doit faciliter en fait mm -hmm. rendre l'environnement euh, propice propice mm-hmm. pour ñu mën a euh, entreprise yi mën di recruter te loolu pour mu am gis nga suñu suñu suñu suñu matière première yi mm-hmm. ñuy jël di ko exporter tant bàyyi wuñ ko du ñu atteindre la plein emploi mm-hmm. pourquoi je le dis parce que je me dis tout simplement ki nga xam ne kii exporte say matières première exporte en même temps ses emplois mhm. parce que emploi yooyu dama lay jox benn benn exemple tey bu ndaw mhm. boo ñëwoon tey lu mel ni ci ci ci secteur bassin arachidier arachidier bi ñuy wax mhm. fu mel ni Kaolack wala fu mel ni Diourbel dëkk yooyu tey nga teg fa une entreprise boo xam ne parce que problème gerte la ñuy wax export gerte bi ñu teg tey jii benn entreprise boo xam ne dafay def décor day décortiquer ñii di trier ñii di calibrer est-ce que jeune dina jógee ti Bawol wala jógee Saalum di ñëw fii di def marchand ambulant mhm. il faut le voir comme ça buñ paree ñu jël gerte googu en même temps mun nañ ci defar euh, ci nga déggee mhm. pâte d'arachide et c'est partout dans le monde parce que mhm. ça c'est mon domaine dañ koy defar fii ñun ak ay réseau de femmes di koy jaayi partout alors lu tax loolu état bi mënul jël par exemple di di politiques incitative yoo xam ne dinañu dimbali yombalal les petites et moyennes entreprises ñu implémenté wu partout dans le pays ku nekk par rapport ak ressource bi nga am nga nga nga nga nga exploité ko nga transformé ko parce que en réalité loolu mooy créer en fait ce qu'on appelle des océans bleus mm-hmm. ah de nouveau marché mm-hmm. parce que en fait ba tey jii dama jàpp ne fii mu war a teg teg teg affaire bi daal mm-hmm. dafa dafa des parce que dafa des waaw dafa des on parle de